Sall Wade en 2016 la moitié a été corrigée par monsieur le président Macky Sall donc constitution Sall et la différence fondamentale entre les deux systèmes est que dans cette nouvelle constitution Sall il y a des articles qu'on a déclarés inchangeables et intouchables intangibles intangibles mmh. inchangeables mmh. intouchables n'existait pas dans la constitution de Senghor et c'est le peuple sénégalais par référendum tout le Sénégal réuni qui a dit ça et qui va le changer quelques députés dont la plupart ne savent même pas écrire une lettre. C'est la vérité. Parce qu'on mhm. sait comment ils ont été élus. Mhm. Alors, donc, ce n'est pas la même chose, ce pas le même mais système. mais Ahmed Doudou mhm. et Ismaïla Madior Fall. non Ismaïla Madior kooku moom c'est de la pourriture quoi kooku c'est kooku pourriture la quoi lu en dem euh, inutilisable kooku moom on doit le jeter à la poubelle quoi. Euh, Mhm. Euh, euh, mais Ismaïla Madior moom saa waay euh, mais Ismaïla Madior Fall moom. dama mhm. parle non soo bëgg a tee émission yi neex bul may wax ay waxam quoi qu'on avance sur d'autres kii parce que daf ñuy perdre le temps. man ku ma dul yokk xam-xam moom. Mhm. au contraire dina saxal sama xam-xam du ma par respect aux Sénégalais je ne parle plus de lui Maître Doudou Ndoye. Maître Doudou Ndoye ce qu'il a dit là mais ñii ñoo fi ne ñii sont des têtes xale yi ci ñii la ñuy roy mais ay Ismaïla Madior Fall quelqu'un qui a vendu son âme au diable moom saa yi man. mais Macky Sall xam na lii Maître Doudou Ndoye di wax. mais xam na ko mais non c'est-à-dire Macky Sall. moom mi defar loi yi. non non yóbbu ko assemblée nationale yóbbu ko référendum sénégalais yi voté yow mi ko defar. non Macky Sall personne ne va être là pour t'expliquer ça ah, j'espère. Euh, jamono ji moom Macky Sall moom nëbbatootul quoi il euh, maa tey lay def. te mhm. bi mu ko commencé def yàgg na ñu ñoo ko ci bàyyi ba muy voté cent carte d'identité. Mhm. boobu ba léegi ci maa la nekk. léegi nag dafa dem ba ñu yegg ci cappaandaw gi mu nar a dig digale réew mi. je pense que les sénégalais dinañu jël seen responsabilité ñëpp ay jël seen responsabilité mooy moi je le sais je sais que ñëpp dinañ jël seen responsabilité même armée bi muy woo nii sax il a il a quelques yu mu yu mu. préparé yu mu préparé on le sait mais nanoo wax ñan la ces forces organisées là moom xam na leen nanoo wax ñan la su fekkee dans l'armée la il a ces têtes qu'il a nanu wax ñan la. cette armée républicaine laa du ko nangu de man lu leer laa leen wax. Mhm. Macky su ko defee fii ay reyante la ñuy doon di nga fi di nga fi gis coup d'état yoo xam ne ku yéeg ñu ku yéeg ñu descendre la. mais pourquoi ñun Sénégal on nous chanter peut-être. wala on nous présentait comme l'exemple de l'Afrique pays boo xam te ne mosuñu am euh, yenn peut-être mbir yi yenn génocide yi yenn reyante yi problème mu kalante ñun amuñu problème mu euh. xeet amuñu problème mu yëpp bu ñu demee ba en 2024 ah ñuy waxtaanee problème mu tarixa euh. problème mu xeet problème dem ba yegg ci ay mbiru coup d'état Vito man defe naa ne qu'est-ce qui n'a pas marché entre temps Vito fi mu toll nii daal pëccaxoo am na tu as interrogé Doudou Ndoye lii la mënee xam nga ni du ma ko fekk si ci àndam. dëgg la man itam sama ànd gii ma nekkee. Mhm. lii ma sama borom di wan man je suis technicien en maintenance industrielle. mais mais mbubu moomu soluma ko mbubu mi ma sama borom solal te ma xam ne xoolal mbubu mi kuñ ko fi solal mu ëpp la. ah peut-être am na ñu ma ëppale nag moom danoo danoo kalu seen rok na nanu génn. Mhm. mais instant bi ñi ci internet bi di génn lu ne yàlla may na leen baati nag yooyu mbub mu ñu sol mu direeku day buubu da na a ëpp. man mhm. de sama buubu maa ngi nii takkaguma dara sant naa yàlla et ce que je prédis là nanu toogaat xaw tuuti ndax depuis depuis 2011 maa ngi wax Macky Sall di ma dégg par le biais de Mbaye Ndiaye. Mhm. l' emprisonnement de Karim de et tout tout ce qui man lii xew ci réew mi dans les moindres détails service de renseignement yi bi taalibe Cheikh Béthio ñi di nekk di écraser les voitures là euh, ci place de l' indépendance bi. sama jeune frère dama ko ni bul génne sa oto. Mhm. j'étais averti. Mhm. loolu service de renseignement daa mën a am boobu attaque c'est une attaque imprévue. ah imprévisible. les talibé Cheikh Béthio Thioune bi ñuy génn di rajaxee oto yi ci ban service de renseignement moo ko mënoon a. prévoir prévoir. ah ba mën a canaliser ni place de l'indépendance lay doon. loolu mayu yàlla la du ci xaw du ci man du dara man ma man. man fi mu toll nii est-ce xam nga ni man deux mille vingt quatre laa deux mille vingt deux mille quatre laa gëj a seetaan match football. Mhm. vingt ans seetaanu ma football xam nga lan moo tax. samay farataa matul. man su ma julee ca jàkka ji tey nodd ba dama koy dégg samay farata daa mat man jaamu yàlla dama cee taxaw ñu ma dàq jaamu yàlla képp a fi ne man weeru koor kese laay woor samay farata dafa mat li ci Serigne Cheikh waxoon ni ku say farata mat mën ngaa dugg sa nekk. déglu sa bàyyi waali man dama koo sañ samay farata matul sama jaamu yàlla maa ngi yow ci bokk yam mhm. man je ne suis extraordinaire. kurus gi du ma wér du duma kii lu neex yàlla la may tëdd mu may wan point. Mhm. amu ma beneen pouvoir loolu ma sama borom di wan. mais tonton Mody posé naa la question. bu ay responsabilité mhm. ban question la ma répondre ci. mooy pour mooy juste quest n'a pas marché ba en mille vingt quatre ñun Sénégal nga xamante ne on nous comme exemple dans l'Afrique dëkk bu musta am problème mu xeet dëkk bu am mësta am problème mu yooyu ñu dem ba léegi ñuy dem ba dépassé nañu sax yooyu parce que fii dinañ fi wax problème mu tarixa problème mu kii kii problème mu nangam même si peut-être yàlla ngi ciy suturaal mais ñu dem ba Sénégal ñu ciy tudd ay coup d'état yooyu. non qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps. Euh, gis nga système bi moo yegg ci li ñuy wooye en cancer métastase. mooy mooy cancer la. Mm-hmm. lii lii xew nii bul yaakaar ni ci avec Macky Sall la rek de. Mm-hmm. depuis Senghor. depuis Senghor bon même mën na ni sax depuis tubaab yi ci tubaab yee fi indi fenn indi fi nju jaaj lu baax li ñu amoon c'était Thierno Souleymane ball avec la révolution des Torodoy. en 1776. Mm-hmm. chance boobu suñ ko saisiroon la ñu échappé tubaab yi ñëw tàmmal ñu ay feneen ki njuuj njaaj dem bàyyi fi Senghor. Senghor ñëw Senghor kese émission la. Mhm. lii fi xew nii njuuj njaaj. Mhm. émission def c'était depuis Senghor. Mhm. Senghor nag daan na ko def avec des manières ñu ñëw ci Abdou Diouf. moom il était plutôt mou et doux quoi. la le bâton et la carotte. oui ñu ñëw ci Abdoulaye waat Abdoulaye Wade moom itam c' est un grand démocrate aussi. waaye moom itam li mu fi fekkoon xamoon na ni pouvoir da koy téye. mais kii ñu am grand. Hmm. <laughs> non c'est euh, waa ji ñu tombel de c'est le sommet quoi li ñu naan c'est le sommet soo yeggee ba ca sommet bi nag xoolal. Hmm. Hmm. soo demee ba yegg ca simba. foo jëm daanu rek mënatoo koo paase. danoo xam nga li ñuy wooye bon cappaandaw gi. 2024 mooy cappaandaw gi on ne peut pas dépasser ça. régime cappaandawu lan. cappaandawu ce que tu dis avec li daan xew ñu dem ba ci. li li li ñu daan wooyee. Mhm. ay régime yu normal démocratique ak mhm. yooyu. Mhm. c'était une c'était une façade mais li ci biir li ci biir daan am de tous les temps. mi ngi woon ci biir nëpp nëpp gii ñu gis nii ma nga fay woon mais dafa génnul woon. au grand jour Macky nag moom moo ñëw moom xolal weer lépp moo ñëw non non avec ma Macky moom mooy cappaandaw gi quoi. Macky Sall mooy cappaandaw gi. waaw uh, nan koy wooyee nan koy wooyee. cappaandaw nan koy wooyee. Macky cappaandaw uh, Macky cappaandaw jox leen ko tur boobu. dugalal ma dugalal ma ca cappaandaw ñu xool. cappaandaw non Macky cappaandaw yegg nañ ci ca. bi dugalal ma photo cappaandaw. mënatul weesu. Macky mënatul weesu lii. bis dugal ma foto cappaandaw yi cappaandaw yi. wala wala kii mooy Macky cappaandaw. <laughs> cappaandaw. waaw cap yegg nañ ci cappaandaw gi le 2 avril cappaandaw. <laughs> cappaandaw yi. manœuvre bu ne def na ko lu ne def il a tout tenté. <laughs> léegi nag ba ci mujj mooy. Mhm. militaires yi su ngeen waxul li militaires yi jël ko fa loolu mooy filaaj mooy maanaam sabar gi tas na. dëgg la sabar gi du tas de. Mhm. on a une armée républicaine. Mm. te su fekkee dafa ah, préparé. tu mais bien sûr. mais dafa am nag ay gaam yu mu préparé nee nan la dans tout système il y a des brebis galeuses. waaw xoolal mm-hmm. euh, ci justice bi. Mm-hmm. mais on a connaît des magistrats corrompus. Mm-hmm. mais ñun xam nañ ci ay juges bon Souleymane. ko am nañ ko fii. Mm-hmm. on en connaît des Ousmane Diagne. am nañ fi mm-hmm. ay Ousmane Diagne. Mm-hmm. am nañ fi ay juge Sabassi Ziguinchor. capitaine Touré am nañ fi ay capitaine. mais am nañ fi nit ñu baax partout. et dans l'armée y a des gars yoo xam ne ils son la et ils ne vont pas se laisser faire. nitam ñooñu mu wax nag ni il y a des gars bien. préparés bien organisés la. su ñuy yëg su ñuy yëg dañ leen di descendre. lu ma sama borom la. ay ay tenue yu verte yu mel ni euh, ay caax yu mhm. verte mhm. ma naan mais pourtant de ñu ni ma non ñii du waa gendarmerie gendarmerie ils sont de tenue bleue ay kii des camouflé bleu ñu ni ma du ay camouflé bleu xoolaatal ma xool muy ay camouflé vert ma gis leen ñuy def ay mouvement de botte l'armée ñu ngi leen di mettre en mais buñ ko nangu de suñ leen ko joxee de c'est un cadeau empoisonné dañuy rayante seen biir de mhm. mais mais euh, mais mais ku yéeg ñaan wàcc la bu makki Sall demee. te te bis bu ñu affaibliree nag. Mhm. gaa yee dugg si. yàlla na bu kenn dugg si ah, bu Macky Sall demee. waay sànq yaa ngi ma doon wax ne. c'est un cadeau empoisonné même pour Ousmane Sonko. non cest à Sonko set un autre cas waxoon naa ko fii usman Sonko ne woon naa leen réew mi ni mu mel nii. Mhm. munu koo jël. suñu borom préparé wu ko 2024 te yegg naa koo wax dama ko daawoon xaw a maquillé nii rek. Mhm. Ousmane su jëlee 2024 lu mu def ñu nee day fayu Ousmane Sonko ni mu mel li ko boromam préparé. Mhm. munu la munu la ñëw di redresser réew mi du fi def dara lu jag il va perdre du temps pour ça. Mhm. ba ca ba day mujj a metti ñu ne voilà làmmiñam bu réew bi def fi dara. Mm-hmm. yàlla da koy jox keneen koo xam ne xoolal moo koy nettoyal terrain bi. 2024 mm-hmm. 2029 xoolal mais est-ce que xam nga man mandat lan la mandat de restructuration. Mm-hmm. on va restructurer sa pays. mandat boobu ki fiy toog. mooy mooy xoolal mooy nettoyer terrain bi. remettre tout en place te kooku sa loolu rek doy na mandat te loolu. bon ku mel ni Bassirou Diomaye ak waa Pastef avec cette coalition avec toutes ces forces politiques là. Mhm. suñ ko defee ba réew mi jag. ñu mhm. teg un processus normal euh, un fichier très correct. Mhm. waxtaane réew mi ba réew mi normal deux mille vingt neuf Bougane taxaw Karim taxaw Sonko taxaw. ñeneen ñi taxaw mais ñetti punkal yooyu nga xam ne naru ñoo bokk man Bougane soo gisee ma naan ko bul toogal rek Bougane su toogoon jàpp ñàmburam jàpp ci processus bi ba ba ñu évacuer que 2029 dina bokk ci les trois grands leaders de ce pays. Mhm. fi mu nag tout se joue avec lui. Mhm. su bokkee ci mouvance bi nii ba ñu évacuer monstre bi. il va mhm. entrer dans l'histoire mais su fekkee ni mi ngi jouer du yo-yo kenn xamul bëgg bëgg bëgg bëgg a jàppandoo ñaari lëg. ñaari lëg ñëpp a koy perdre ñaari du ci jàpp benn. waaw il faut qu'il prenne ses responsabilités. dugg si ci mouvance bi ku bokk ci buggaan daal dégg ma nii ma koy wax vidéo bi suñ ko daggee mu doon lu ndaw jël leen ko wala ci seen affaire euh, voix appareil euh, de iPhone la vidéo bu ndaw bi daggal leen ko buggaan li ma ko ci wax message la mu dugg ci processus bi bañ a bokk ci euh, jeu de yoyo bi quoi mhm. na dem fekk ji mouvance bi nga xam ne on on se bat bu ñu fi waxate sax ay waxu dialogue ay affaire naa bokk rek boobu na bàyyi ay waxu naa bokkam bi Mhm. mais après parce que naa bokk bi mu bëgg noonu. naa bokk boobu la Macky Sall di mbubboo bëgg ay indi du n'importe quoi. mais après le le 2 avril on fait comment. qu'il fasse non on fait comment avec ah, ma ban militaire koy rendre les honneurs Macky Sall su ban militaire koy rendre les honneurs il y aura s'il n'y a pas de président euh, s'il n'y a pas de président élu il y aura te militaire yi suñ ko jëlee pëcc lay doon lu leer laa wax.